nekk ne duñu xeex libération nañu lii moom c'est désespérant yaakaar ji ñu wékkoon ci ñoom gaynde yi mu ngi tàmbale di yàkkeeku ndànk-ndànk ne fenn yu Algérie yi ñoo ñëw defoo leen bagage duma leen benn bal ci dara l'observateur mel ne ku naan ñu lii jëmul kër bu dee nii la nar a demee moom mooy loolu anki dina nañu bii mooy ñetti yoon Algérie di dajeek Sénégal ci maxub coupe d'Afrique di ko dóor Idrissa Gana Gueye ak Ismaïla Sarr journal bi nañu li ñu bi dafa feeñ dañoo manqué a jat gaynde Sénégal yi ba ñu ne nem mu ne xarum yar la si ne kay ko dañu leen a tuutal magum jat Vox Populi nañu Sadio Mané ak i mbokkam ñoom Riyad Mahrez dañu leen a gënoon a bëgg yëf yi Soufiane Feghouli di footballkatu Algérie mel ne ku koy dëggal ci xët mu njëkk Vox Populi nee ñoom algériens yi taxawaayu góor dëgg la ñu taxawee woon démb ci terrain bi football fa footballu góor Sud Quotidien xamal ñu ne Aliou Cissé mi doon wax naan maxub démb bi maxub test la Aliou raté na ab testam moom Aliou Cissé Sud nañu bi ñu ko li xew démb lu ko waral dane mu ne su cee wax ci tàng-tàng bi journal nañu gaynde yi li leen waa Algérie football démb daf leen a dépassé Sadio miñ doon séentu daanaka moom i démb li mu def ca terrain ba ponum pire la dàq na pon waaye pon dàq na ko Le Quotidien nañu teranga ji ëpp les lions de seen teranga ji ëpp seen digg ak Algérie moo leen rey ba ñu dee leneen lu yéenekaay bi gis ci maxub démb bi moo di arbitre bi doon arbitré max ba mooy l'homme du max ne moom it dafa jalgati ba xolom sedd ay penalty yu mu sëgg ay yu mu saale ak i corner yu mu bañal Sénégal kenn du Moussa Wagué ñoom ñaar ñoom catastrophique rek ngay dégg l'observateur nañu li catastrophe ci mag sub démb bi romb na foofee li catastrophe moo di capitaine bi Cheikhou Kouyaté li catastrophe moo di mbay Niang mi mel ne ku ñu yàq Henri Camara ne waa l'observateur Mbaye Niang li ñu ko doon xase keroog suñu digganteeg Tanzanie moo tane fop li mu def démb dafa tàmbalee ñàkk confiance ci boppam Henri Camara ne nan nga bëgg a gañee ab max ba noppi di defandarloo Sadio maane ak Diao Baldé Keita record yéene kaay nañu léegi nag ñoom Lions yi dugal nañu seen bopp ci guuta gu rëy ñu xamul fan la ñu koy lijjantee ndax max bi leen des seen digg ak Kenya il faut que dañu koy gagné bu ñu bëggee des ci Coupe d'Afrique bi Diomansy Kamara ne ñu ci xët mu njëkk record équipe bu Sénégal problème mu personnalité la ñu am dañoo gaaw a jaxasoo coow li jaxasee réew mi fan yi yëpp mu di coowal Petro-Tim l'Observateur moom la xëyee ci xëtamu njëkk xamal ñu ne Aliou Sall moo ngi préparé défense am ñoo ngi xalaata yónnee El Hadj Kassé ab sommation maître Babacar Ndiaye di avocat Aliou Sall ni ñu ci kay bi ba fi mu nekk ne Aliou Sall jotagul benn convocation mi ngi ne tekk toog di xaar dalul kenn Hamidou Samba Kassé di El Hadj Kassé ak Abdoul mbay ba ñu demee keroog ca dikk la ñu fa wax yëpp direct info xëy na ñu ko wax ci xëtamu njëkk yéenekaay bi nañu El Hadj dafa soppi ay waxam carrément ne nee na amul benn preuve ci ne Timis wersal na Aliou Sall deux cent cinquante mille dollars yi ñuy wax ci compte Agritrans mu ne it sa boobu tabi di moom El Hadj Kassé gëm na ne Aliou Sall moo nekk ci dëgg waa aar li ñu bokk li ñu bëggoon a bokk ak waa g def ko tey mu di àndandoo manifester loolee am Soleil national nee nañu préfet bu Ndakaaru tere na bépp manifester ca place Obélisque nee na ku turbale ordre public bi lay bañ vox popule nañu bomb bi naroon a kalaate tey jii ci réew mi préfet bi désamorcé na ko la tribune nañu du préfet président la Macky Sall moo tereelu doxub ñaxtu bi waa aar lu ñu bokk bëggoon a bokk waa g amal ko tey jii li mu ciy bañ moo di mbir yi ëppi loxo rawatina bi ñu déggee ne Abdoulaye Wade da bokk